أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر آمين لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الدنيا مليئة بالأحزان والأقدار والضيق والدنك فلا سعيد فيها إلا من فر منها إلى خالقها فيفر المؤمن من شهواتها وزخارفها وتضليلها إلى الله سبحانه mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba tey mooy alfiraaru ila allah mooy jamono bi moo jot ñun ñëpp nu war a xam ne danoo war a ànd fëx daw utali sunu borom lu tax mooy àdduna dafa fees ci ay jafe-jafe fees dell ak ay naqar fees dell ak ay jàngoro ak ay nëx-nëx ak ay xat-xat ak ay naqar yu dul jeex mbokk yi ñun nëpp nañu ànd xam ne kenn mënta texe ci kaw àdduna fala saidun fiha kenn mënta am jàmm am texe tey ci kaw suuf illa man farra minha ila xaaliqiha lu dul ku daw fëx jëm ca boroomam tabaraka wa taala kooku doo nga fi mën a taxe tey fala saidun fiha illa man farra minha ila xaaliqiha kenn mënta taxe tey ci kaw suuf lu dul ku daw lu dul ku xelu xëlu jëm ci boroomam tabaraka wa taala ab jullit tey ci dund gii nii dund day daw ay bànneex daw ay bëgg-bëgg daw ay taar daw réer jëm ci boroomam tabaraka wa taala mu ne wa amma saqi bu dee ku texee di la jullit moom day daw jëm ci yàlla ki nar a texee di moom day daw jóge ci yàlla jëm àdduna moo tax dunu benn amma saqi fa yafirru min allah ki texee di moom day daw jóge ci yàlla jëm àdduna ki texe day daw jóge ci àdduna jëm ci yàlla kon ñoom ñaar dañuy juuyoo kon ñoom ñaar waruñu nekk benn comme ñoom ñaar waruñu ànd kële day daw jóge ci yàlla daw yërmande yàlla daw njëggalam jublu aduna jublu seytaane mu ne fa shattaani ma baynal fariqayni aka wuute ñaari kuréel yi kuréel bi daw jëm ci yàlla kuréel bi daw jóge ci yàlla wa ma azama albawna bayna taifatayni mbokki julit yi ñaar ñooñu seen diggante espace bi fi nekk kenn mënu ko nat suñuy wax nag nit ñi di soññ jullit yi di sonn suñu bopp ne dañoo war a jaw jëm ca yàlla kon war nañu xam ma maana alfiraaru ila allahi wa anwaau war nañ xam daw jëm ca yàlla lan lay tekki ñaata xaaj la ñaata mbooloo la ñaata nit la ki bëgg a jëm ci yàlla ban yoon lay jaar ixwat al iman fa min maratib al hidaya wa darajatiha al firar wa huwa naw'ayni فرار السعداء وفرار الأشقياء mbokki julit yi ab julit bu jóg jëm ci yàlla wala jóg jëm ci yàlla ñaata xaaj la ak ñaata maratib la ñaata étape la ñaata daraja la lu njëkk mooy ñu xam ne ñaari xaaj la ñi baax ñi jëm ci yàlla ak ñi texee di ñu jóge ci yàlla amal firaaru soda bu fekkee ñi texe la xëlu gu ñuy xëlu fëx jëm ci seen boroom fa huwa firaaru allazina yafirruuna min kulli shay ila xaaliqi kulli shay mooy ñoom ñooñu nga xam ne ñoo texe ñoom ñoo ne ñoo bëgg yàlla bàyyi bi ñuy bàyyi lépp jëm ca yàlla mi nga xam ne moo bind lépp kon ki bëgg a jëm ci yàlla da ngay bàyyi lépp ak ñëpp jëm ci borom ñëpp ak lépp da ngay bàyyi jaam ñi jëm ci borom jaam ñi bàyyi àdduna jëm ci borom àdduna bàyyi lépp loo xam ne mu ngi fi di tardeel ak di sooxal ak di jàpp nit di ko tere egg ci boroomam moo tax mu ne yafirruuna min kulli shay ñooñu dañuy daw lépp fuñ jëm ila xaaliqi kulli shay ci ki bind ñëpp wa hada firaaru ahlu soda mu ne lii mooy xelu lii mooy xëlu lii mooy daw aji xelu yi ñi texe ñi lii mooy seen mbir mu ne wa yafiruna min addunya wa min balayaha wa min annas wa min kulli shay ila allahi aza wa jal dañuy bàyyi àdduna ak ay mbiram ay nattoom ak ay jaar-jaaram ak ay taaram bàyyi nit ñi bàyyi lépp fu ñu jëm ñu ngi jëm ci seen borom tabaraka wa taala ñoom ñëpp ànd def mbooloo mu ne fal firaaru ila allah huwa firaaru soda bii nii bu njëkk bi moom mooy daw jëm ci yàlla way texe yi yal nañu yàlla musal am na fi ñeneen ñoo xam ne ñoom ñooy firaarul asqiya ñooy ñooy ñu texee di ñi ñi luy seen mbir firaaru lazina yafirruuna min allah ñii dañuy daw jóge ca yàlla ñoom bëgguñu sax dégg baatu yàlla mooy tey xew-xew yi ngeen di gis ci jamono léeg-léeg nga jàpp ab télévision sax ngiy wax yàlla nga dégg ko leneen changé ko waay léeg-léeg muy ab on rajo waa ji naan yàlla nee na nga dékkule ne changé ko léeg-léeg muy nit koo xam ne day toog ci place di waxtaan bu dee yàlla ñu ne ñëwati na de kii moom foo ko gis yàlla yàlla yàlla yow xanaa yàlla moo la yónni yow yow xanaa yàlla moo la wax yow yaay borom jaam ñi wala nangam ak nangam parce que nit ñi def ci am ñoo xam ne buggunu dégg baatu yàlla moo tax yafirruuna min allah dañuy daw jóge ci yàlla wa min al hidaaya dañuy daw jóge ci njub bëgguñu baax bëgguñu dégg lu baax bëgguñu gis ku baax ñu gisee sax ku baax seen tension day monté wa min ahlil xayri bëgguñoo gis ñooñu yiw wa min ashaabil xaq bëgguñoo gis dëgg bëgguñoo gis ñooñu dëgg wa yarawna bi ayn al basar almuhaddaq gayru almuntalaq min anwaari alwaxyi ndeysaan ñi nga xam ne dañoo texee di nga xam ne bëgguñu dëgg bëgguñu waa dëgg bëgguñu njub ñooñu dañoo yor rek benn espace bu ñuy xool seen bët yi dafa am fu mu limité wu seen xel yi dafa am fu mu yem ñooñu dañuy xool waaye xooluñu fi leen alxuraan xooloo moo tax duñu gis fa yarawna anna saadata fi ma yataxayaluhu alwaahidu minhum laa fi ma xaddatahu alsharcu alxanif kenn ci ñoom ñooñu nga xam ne dafa texee di mbokk yi dafa daw bàyyeekoo ca yàlla dafay gis ne li lislaam wax ñi lislaam wax ne ñii ñoo texe ñii ñooy ñu baax moom day gis ne li lislaam wax lii moo baax loolu baaxul moom li mu bëgg looloo baax moom li mu gis loolooy li baax gis-gis bu xat lañu yor dégg-dégg bu doy waar lañu yor bu xat bu wuuteeg dégg-déggu sharia wa kullu wahidin min haula yufakkir anna alkitaba wassunna yudayiaani alayhi quyudan kenn ci ñooñu nga xam ne dafa texee di bokk na ci xalaat yi muy xalaat ne alquran ak sunna téere bii di téere yàlla lii yonent bi bàyyi ko fi te muy njàngalinam muy sunna yonent bi dafa xatal adduna bi dafa xatal sunu dund yàlla nee na yonent nee na yéen da ngeen a xatal adduna bi da ngeen ñëw tënk da ngeen ñëw yeew ci ay buum yoo xam ne ñun mënatuñoo dem ndax bu ñu buggee def dara rek ngeen ne yàlla nee na suñu geestoo ndeyjoor ngeen ne yonent bi nee na dootuñu mun a def dara moo tax noppi leen bu leen waxati ñooñu kenn ci ñoom noonu lay gisee fa yaqulu laka ya axi léeg-léeg sax kenn ñoom ne la yow sama mbokk kullu marra yazhabuna illi salaa yow da nga bëgg bis bu nekk rek may dem jàkk di julli mais dem naa suba mais bàyyil ba beneen suba bi encore mais dem suba dem tisbaar dem takusaan dem timis dem gee mais dem dem dem bi mais mais def loolu dafa bëri te man aw ma temps aw ma jot di vailler vient jàkka yi ndeysaan moom noonu la gisee dund ne islam da leen di sonal ndax vailler vient julli yi balaa maa dee ngeen ne wa yajlisuuna fi dars waaye dem leen ngeen toog ngeen jàngi mais amuñu temps bu ñu jàngee amuñu temps bu ñu dégloo xam-xam amuñu temps buñ ñu leeralee benn masala diine fi kulli xiin awaamirun wa nawaahi waaye yéen bis bu nekk rek def leen bàyyi leen def leen bàyyi leen non loolu def ñoo sonal da ngeen ñu war a bàyyi rek ñu am suñu liberté bopp lu nu neex def lu nu xalaat ne lii mooy baaxal rek ñu daal di def loolu nee na benn kuréel bi ñoom ñoom nii la ñu déggee gis ne kenn warul leen wax def leen kenn warul leen wax bàyyi leen dañuy wax sax ne ñoom su ngeen di waxtaan ak ñun bu leen ñu wax ay aljanna ay safara non bàyyi leen ñu rek ñu tranquille bu ñu kenn wax waxu yàlla ak waxu yonent alquran sax nettali nag kuréel boobu mu ne wa iza zukira allah wahda sooy wax ak ñoom rek ba tudd yàlla mu ne iz ma'azzat qulubu allazina la yu'minuna bil axira da ngay gis seen xol yi lamu ñu am xat-xat ndax leneen moo leen gënal yàlla fa iza zukira min dunihi boo tuddee leneen wala ñeneen ñu dul yàlla iza hum yastabsirun nga gis ñu kontaan kanam yi leer xol yi féex parce que dañoo wax leneen lu dul yàlla mu ne dund gu mel nii su fa doomu aadama yeggee daraam dootul baaxati adduna mooy njëkk a xat su deewee jëm alaxira dajeeg borom bi yàlla duma ko mbokk yi lenn saa yi kenn ci ñoom ne la ñun dañoo bëgg ngeen bàyyi ñu am suñu liberté ñu tànn lu ñuy lekk tànn lu ñuy sol tànn heure yu ñu war a julli tànn lu ñu war a naan tànn fu ñu war a dem lu ñuy wax sax ñun ñoo ko xam mu ñu kenn xatal bàyyi leen ñu rek kuréel bu nag mooy kuréel bu mujj bi mu ne ñii ñooy ñi texee di mu ne ñii ñooy ñi wàcc ci kaw àdduna te xamuñu lan moo tax seen borom bind leen mbokk yi ñii nii falmasiyati indahum laha xalaawa mooy yàlla ci ñoom bànneex la ku mooy yàlla ci ñoom dafay dafa ne tey journée am neex na loolu ngay gis tey ku mooy yàlla di jibile tey li ma def dajeeg sa mbooloo mi ñëpp di la tàcc naan la ngand nga ponkal nga yow lan nga def c'est parce que da ngaa tooñ yàlla ñoom ci ñoom tooñ yàlla mbégte la wa taatu indahu laha miraar topp yàlla dafa metti léeg-léeg nga dajeeg nit mu xool la ba ci yàgg ne la yow dama la yërëm nga ne ko lan la mu ne damaa xam ne yow li nga bëgg a nekkee nii yow doo laal jigéen yow doo tëx yow doo naan sàngara yow doo déglu musique yow lu ñu wax rek nga ni yàlla mais yow booy dama laa yërëm yow mais yow kañ ngay tekki kañ ngay dund yow mais àddina bi li ñu mais yow noo sa allahu akbar ndax jàpp ne mooy yàlla mooy tax àdduna neex soo moyul sa boroom tooñoo ko rek amoo espace bu féex boo nekk yenn saa yi lenn ci gaayooyu lii lañ lay wax topp yàlla dafa metti di julli ji foo toll di yeewu guddi di naafila di woor di woor ndeysaan sunu benn dëkkandoo koor gi dafa jeex xale yi xëy woor gaa yi ne ko aan a hoorata janngo mu ne mi hooraani mi mi jaɓɓaaki mi duusaani mu ne mi jaɓɓaaki mi duusaani yen ñi dégg pël mu ne gunge wuma teer wuma waaw gunge wuma maanaam bu weer wi ñëw dañ naan gungeel yenn saa yi bu weer wi di ñëw nga gis ku woor soo ko nee lu tax nga woor mu ne damay gàttandu moom nag mu gis xale yi woor mu ne yéen lan la xale yi ne ko dañuy gunge quoi dañuy woor sitta sawaal mu daal leen làkk ci pël mu ne miin mi jàppaaki mi duusaani ndeysaan allahu akbar foofu la gaa yi toll ci yàlla maanaa tey fu nu toll mooy yàlla moo nu jaralul dara bëggunu ci mbirum yàlla dara sun nu woowee ci àdduna ñun ñëpp pare nañ waaye bun nu woowee ci yàlla dañuy diis diis lu kii dem sax day tayal du dem ngir am ngërëmal yàlla du dem ngir am kontante yàlla du dem ngir am fayu yàlla maa day dem demu ñàkk pexe moo tax bu ñu yegsee sax ne gaawal waaye amuñu jot amuñu jot gaawal su dee julli la ñu ne na gaaw bu dee waxtaanu diine la ñu ne na gaaw dafa yàgg xam nga léegi nit ñi amuñu temps da ngay tënk rek jox nit ñi nga gis ku noog kenn ci ñoom mu toog ci kanamu écran télé quatre-vingt-dix minutes du bouger quatre-vingt-dix minutes mu toog ci kanamu écran nga gis kenn ci ñoom nekk ci benn stade di seetaan bëre huit heures ci suba ba huit heures ci guddi duggaatul këram mi ngi ci stade bi toog di xaar combat bi boo ko waxee ci yàlla vingt minutes mu ne dafa yàgg dafa metti tënk leen li mu jeex léegi sax imaam yi xam nañ ko benn jàkk ndeysaan benn imaam day jàng di guddal gaa yi daal di def réunion ne ko imaam sa jàkk yi dafa gudd ñun amuñu jot del gàttal mais aay yi ngay jàng dafa gudd imaam bi ne dégg naa ko pour mu jubóog ñoom mu ñëw benn waxtu daal di jàng fatiha rek daan ne mudahammatan allahu akbar daal di rukoo ñu sëlma rek kenn ne ko gis nga li ñuy wax ci yow lu gudd lii mooy lan mu ne ko ñaari baat laa jàng mu ne mu ne ko def benn kon nit ñi boo leen toppee soo leen toppee li oustaz rahimahullah doon wax maanaam buñ la bàyyiloo sunna di la bàyyiloo sunna di la bàyyiloo sunna di la bàyyiloo sunna xam nga fu ñu jëm ci bàyyiloo la sa diine du question bàyyil sunna jàkka jooju dañ doon wax bu fi kenn wax amin ñu yóbbu ñu préfecture bu géejawaay bii waaw préfet mu ne yéen da ngeen di wax amin ah mu ne waaw mu ne paa yi bugg ñu ngeen wax amin ngeen di wax amin ndeysaan sunu kilifa googu comme moo jiite woon mu ne ko wallahi préfet fii nu toog ci saal bi boo jiite woon gee nga wax wala doolin mu ne wallahi dinañ wax amin sa ginnaaw ñun sunu amin bi tënkuñu ko fen fu ñu dem dañ koy wax parce que yonent bi moo nu ko wax loo ñu génnee muy woo ñu mu ne ñu bu kenn bàyyi sunna luñ leen bàyyiloo benn rek dinañ la bàyyiloo ñaar suñ la bàyyiloo ñaar bàyyiloo la ñett buñ la bàyyiloo dañuy dem ba bàyyiloo la diine diine bi lan lay bàyyiloo du sunna moo leen metti mais diine moo leen metti nit ñi diine lañ bëggul yàlla la wax man yàlla maa leen indil dëgg waaye ñi ëpp ci nit ñi bëgguñu dëgg yàlla moo ko wax yàlla ni Muhammad maa la indil dëgg waaye nit ñaa ngi nii bëgguñu dëgg yépp foo lañ bëgg caaxaan soo leen ci woowee ñu gaawtu alquran moo ko wax ka annahum ila nusubin yuufiduun nga gis ñëpp gaawut boo ne woon benn bàmmeel a ngi nii léegi ku ko raay texe ñëpp daw tibb suuf si suñu réppee sax ñu sulli ko fa tëdd yóbbu yóbbu yax yi léegi balaa may ñëw benn waaye def maa woo téléphone mu ne ma dañ may utloo saabu bu ñu sangee néew dañ ma koy utloo saabu bu ñu sangee néew lañ may utloo loolu lu ci islaam wax ma ne ko xam nga ki la koy utloo lu mu koy doyee mu ne waaw ma ne ko noppiloo nit ñi ñi ngeen di gis yëpp ñuy ñuy jël dara ci néew mbubu bu ñu sangee bu ñu sàngee néew jàmpe bu ñu sangee néew saabu bu ñu sangee néew wala lenn lu bàyyeekoo ci néew ku dee ñoom ñu jël ko di di ci jabaraan lu ñuy def xam ngeen néew du wax néew du yëngu néew du jóg néew dootul doxati maanaa kañ ciy xëram noonu lay mel ne néew bi dootul bouger loolu lañ koy doyee moo tax chaque jour boo demee ci morgue yi loo fa fekk rek bu yeboo nga buub ko gas ba mu xóot suul ko parce que nit ñi jaral na leen lu ne di nga gis léegi ku indi un million ne la jàmpe bu sang néew laa bëgg wala daggal ma ci mbubbu néew bi tuuti rek deux cent mille la ngi nii tuuti rek laa ci bëgg lu mu koy doyee ki dem ba ci armée bi sulli néew bi ah ubbi gémmiñ gi dugal ci téere ngëbaat ko dugalaat néew bi ah kooku tey bu gisee néew bu ñu suulagul nu mu koy def ki dem ba ci armée li sulli néew bi ŋaangloo gémmiñ gi wala ñëw gas ba mu xóot ba daj néew bi daa di jël xërëm bi ne ko yaa saahibu haza al qabr haza amanatun indaka ila yawmi al qiyama daa di suul jóg dem mi ngi ci téere yi ñu bind mi ngi ci téere yi jàngale njabar ñii njabar bu ñuy def di suuli ci armeel yi xërëm bu ñëwee gas ba mu xóot ba jot néew bi dañ naan ko yaa saahibu haza al qabr ee yow borom bàmmeel bi lii ndénkaane la maa ngi la koy dénk ba yowmal xiyaamati nga suul dem waaw bu dee koo bëggoon tàqale ak ay mbokkam bu doon koo xam ne da ngaa bëgg mu noppi dootul waxati bu doon bu doon dëddale bu doon bu doon bu doon bu doon su ko defee foofu lay nekk ba yowmal xiyaam kan moo xam ne lii fii la nekk kan moo tax nit ñi war nañu ragal yàlla war nañu delloo si suñu xel yi xam ne diine mooy dëgg yeneen yi ñuy def yépp caaxaan la yeneen yi ñuy dugg yépp mboosóoru àdduna la te yàgg yàgg yàgg borom bàmmeel boobu nga gas di nga dee fekki ko fa bu fekkoon na yow doo dee kenn du la indi ci bàmmeel bi mun ngaa def lo neex waaye wallahi bañ nañ ko ba yonent bi li mu jàngale booy dugg ci armeel yi da nga leen di wax ne wa antum saabiquun wa inna insha allah bikum laahiquun yéen de da ngeen a jiitu rek ñun ñoo ñoo ngi nii di ñëw noo ngi nii di ñëw te noonu la amee noo ngi nii di dem léegi ñun ñi ñëpp dañ naan guddi na gaaw leen képp ku la gën a jege képp kuy sa xarit du am jàmm du lu ñu génne la ci kër gi dugal la ci morgue bi simmi la sang la sang la fatt sa turu yi yeew la ba nga dëgër këcc daa di génne teg la ci buntu jàkk ji jullee la teg la ci oto yi yóbbu ci armeel ya loolu nag ku ku ko xalaat ku xalaat ne bis da nga taxaw ci kanamu borom bi yawma yaqumu nnaas li rabbil alamin soo xalaatee loolu war nga dellu ci sa xel war nga bàyyi xel sa borom war nga bàyyi xel li tax ñu indi la fii ixwat al iman aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillah wassalatu wassalam على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بقي يلا صفة الفرار إلى الله أنا ينمي لكان لن ورمل بني جمت سنو برام إن كل من يفر إلى الله فهو كريم li annahu yafirru ila karim képp koo xam ne ci ñun da ngaa bëgg a jóg jëm ci yàlla yëgal ne yow ku tedd nga ndax da ngaa jëm ci ku tedd yëgal ne yow ku baax nga parce que da ngaa jëm ci ku baax waaye mbokk yi wax ji mooy lu tax tey su nit waxee maa ngi dem ci sama xarit ñëpp kontaan maa ngi dem ci borom alal diw ñëpp kontaan maa ngi dem ci buuru diw ñëpp kontaan maa ngi dem ci xalifa diw ñëpp kontaan maa ngi dem ci kilifa diw ñëpp kontaan soo nee maa ngi jëm ci yàlla ñu ne la dafa teel teel na de teel na hatta bu doon sa doom la sax hatta laax bu doon sa doom muy ànd ak yow di julli ji nga koy yar ci yoon wi wala moom kenn sax muy dem da ngay gis ku ku nëbbatu ñëw ne la xale bi téye leen ko xale bi téye leen ko moom dong ci biir jàkka ji loolu xam ngeen ne wóorul yàlla bu yàlla nattu nag xale boobu daal di faatu dañ naan xamoon nañ ko kii ñun ñëpp xamoon nañ ne du gudd fan ndax li mu commencé moo jaaduwut lan la commencé jàng alxuraan lan la commencé topp yàlla lan la commencé dund alxuraan ak sunna ñun ñëpp noonu lan mel bañ nañ ko ba dañ naan bi nga nekkee xale moyal yàlla tooñal yàlla branché wul dafa lu la neex ñun ñëpp loolu la ñuy wax mbokk yi lu tax suñ waxee nit su la waxee maa ngi jëm ci diw tuddal la benn kilifa nga kontaan bu la waxee maa ngi jëm ci yàlla nga mer lu tax loolu wa laysa al karim an yu'ti al maal aw yabzul wa innama al karim fi xuluqi al muslimi kullu mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala moo nuy xamal ki jëm ci moom ku baax la ndax moom waa jooju dafa jëm ci ku baax moo tax mu baax mbaax du joxe alal mbaax du maye mbaax du liñ ko foog mbaax mooy nga defar sa jikko yonent bañ ko laajee lan mooy mbaax mu ne al birru xusnul xulq mbaax mooy nga defar sa jikko ba gaa yi waxee diw de day julli mu ngay jublu place sàngam yàlla ne laysal birr an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birr yàlla daal di indi arkaanul imaan yi kon loolu mooy mbaax nit defar jikkoom defar pas-pasam fal karimu fi muamalatik nga fexe defar sa relation yaag nit ñi góor ak jigéen mag ak ndaw yaag sa soxna fexeel nga doxal fa mbaax yaag say dëkkandoo yaag say mbokk rawatina yaag mbokk jullit yi fexeel nga jëflanteeg nit ñi jëflante bu rafet lii la la diine sant lii mooy alfiraaru ila allah mooy jëm ci yàlla tabaraka wa taala ixwatal iman nanu fexe ñoo xam ne ñu nekk noo xam ne yàlla moo nuy gënal suñu bopp waaw rabia da doon wax laytaka tarda wal anaamu xidaabu yàlla soo kontaanee ku mer affaire am la nanuy fexe li yàlla bëgg ci ñun nañu gënal suñu bëgg-bëgg li nu yàlla digal nañu gënal lu nu doomu aadama digal looloo tax doomu aadama ci lu mu mën a nekk su jaamu yàlla jotee dana war a xam ne kii ku bëgg yàlla la mooy da nga koy bàyyi da nga koy gis mu bàyyi li doomu aadama yi santaane mais mu def li yàlla bëgg ku jëm ci yàlla bu julli jotee dañ koy xam su koor jotee dañ koy xam su jaamu yàlla yi jotee dañuy xam ne waa ji ku jëm ci yàlla la waaye ku bañ yàlla ku ko bëggut ku ko sori comme ki ñu doon wax sànq da ngay gis lépp lu ñuy adressé yàlla waa jooju day yéex yéex lu ci ginnaaw lay nekk waaye ki bëgg yàlla lépp lu ñuy wax yàlla ci kanam lay nekk Moussa ba ko yàlla woowee moog banu Israil ne leen bésub sàngam na leen fekk place su sàngam bés ba jot waa banu israil di yéex yéexlu Moussa dafa fax bàyyi leen foofu dem yoonam bi mu yéeg see yàlla ne ko ana gaa yi mu ne wa ajjaltu ilayka rabbi li tordo yàlla bàyyi naa leen fi damaa yàkkamti ñëw ndax nga kontaan ci man kon yàlla su diglee ab julit dafa war a def pour yàlla kontaan ci moom waaye tey li ñu gis mooy nit ñi kontaan ci ñun dëkkandoo yi mbokk yi doom yi soxna yi ñëpp kilifa yi kontaan ci yow moo gën ci yow tey yàlla kontaan pourtant jàng nañ ci alquran yàlla mu ne wallahu wa rasuluhu ahaqu an yarduhu in kuntum muminin yàlla ak yonentam ñoo war a gën a yay ci yow pour nga am seen kontante waaye tey kontante nit ñi moo nu gënal kontante yàlla bëgg-bëggu nit ñi moo ñu gënal li yàlla bëgg ndigalal keneen moo nu gënal ndigalal sunu borom foog ñu jàngaat ay delluwaat yeesal ci sunu bopp li ñu yàlla ne fa firru ilallah daw leen jëm ci yàlla waxtu wi ñu toll waxtu daw la ku dawul seytaane langaamu la ku dawul njaboot langaamu la ku dawul soxna yi langaamu la ku dawul àdduna langaamu la ku dawul bakkan langaamu la juróomi yi moo tax ñun mënuñoo dem ci yàlla saa yoo bëggee dem sa njaboot ne la crise ne la foo foo jëm ñun nag nga commencé yërmande di xool yërmande di xool naan sama njaboot ba ci kanam ndeysaan nga bëgg a jóg soxna yi ne la ñun nag nga bëgg a jóg xarit ne la ñun nag nga bëgg a jóg iblis ne la foo jëm nga bëgg a jóg aduna ne la da ngay bàyyi fii lii nii lii ngay bàyyi ndeysaan nga daal di delluwaat doo egg ci sa borom mukk juróom ñii ku ñu jàpp doo fexe ba nga egg ci yàlla juróom ñii ku ci mucc nekk ku jege yàlla tabaraka wa taala saa yoo rëcci àdduna rëcc seytaan rëcc njaboot rëcc soxna yi rëcc bëgg-bëggu àdduna yi rek egg nga ci sa borom tabaraka wa taala loolu nag mbokk yi ku xeexul ak bakkanam su nit feralul bakkanam bii li bu seyri di wax an nafs ka tifl mu ne bakkan moo liir ñoo yem liir niñ koy gàddoo feral ko soow mu fanaan guddi di jooy yendu di jooy gontu di jooy ngir bëgg a namp ñu xamal ko ne da ngaa fer su doomu aadama deful noonu bakkanam du yegg ci yàlla ndax bakkan yàllaa ko def mu bëgg bànneexu àdduna moo tax jàngeen ci alxuraan ñetti bakkan nafsun ammaara nafsun lawaama nafsun mutmainna ñetti yaa ngoog bu fekkee ammaara boobu moom gisatul yàlla gisatul lu baax gisul yonent gisul diine gisul alquran ndax mooy bakkan boo xam ne dafa xomaat ci mbon wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaaratum bisu illa man rahima rab illa ma rahima rabbi yàlla subhanahu wa taala moo wax ci suratu yusuf ne li ëpp ci bakkan yi dañoo mandi ci mbon nit nag bu màndee ci mbon ci biir bàmmeel la koy lay lay lay xippee beneen bi ci des mooy nafsun lawaama mooy nit koo xam ne fitra bi des na léeg-léeg mu yéex a julli bakkan bi ne ko xam nga li nga def mu daw léeg-léeg mu tëdd bëgg a bañ a julli ko ah jullee goo de jullee goo gee de yaa ngi di bëgg a tëdd mu jóg ah tey defoo askar de yaa ngi ni di bëgg a nafsun lawaama moo lay yedd ban mooy bu baax mooy nafsun mutmainna yaa ayatuha nafs gis nga al mutmainna irjii ila rabbik raadiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati kon mbokk yi foog nu yar sunu bakkan yi foog nu góorgóorlu xeex ak moom ni ñuy góorgóorloo ci sunu jëmm yi ba muy set fu nu toll ñu koy bomb lu nekk nga gis yenn saa yi nga gis benn waay boo xam ne soo duggee fi muy sangoo chambre toilette am da nga fay fekk bépp produit pour yaram bi set bépp façon njàmpe ah ñi ay siwo ñi ay bool ñi ay satala ñi bañ nañ ko sax ba ñoom dañ leen a gasal lu mel ne dex piscine ci seeni biiru toilette pour ñu mën a set waaw ni ñuy góorgóorloo ci yaram yi di ko diw di bomb di raxas ak produit yooyu foog nu góorgóorlu noonu ak sunu bakkan yi borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran fa amma man taga wa asara alxayata addunia fa inna aljahima hiya almawa waaye wa amma man xaaf wa naha annafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almawa képp koo xam ne da ngaa xeex ak sa bakkan nga poñe ko tere ko bànneexi addina yi nga feral ko ba bakkan bi fer borom bi nee na yow aljanna nga jëm musibi fulbe caggal yettude allah e julde nelaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hutba men hannde wonno alfiraru ila llah woni neɗɗo o yo dog o faya to allah koye oɗon waktu wona joni ko oɗon waktu yoni waktu oɗo mo gonɗen oɗo saaha mo guureten ko saaha mo ganduɗa neɗɗo o dogat o faya to allah sa dogani wonko wonɗo ma jagge so jaggima a wonta ɓoccito so wona jaaha to allah juuɗe ɓole aduna nan ɗo yiɗi ko jaggudema ɓesgu nan ɗo yiɗi ko jaggudema rewɓe nan ɗo yiɗi ko jaggudema oɗo aduna yiɗi ko jaggudema cheyɗan yiɗi ko jaggudema fittanduma yiɗi ko jaggudema sa dogani wiya waɗa no aya o wini fa firru ila llah doge ngare to allah cuuɗoɗon a ɓoccittako yimɓe ɓe koɓe yimɓe ɗiɗo o o dogi o fayi to allah o o dogi o ummimo to allah so neɗɗo dogi fayi to allah o yettoto kono yo andu so ɓoccitaki ɗeɗo gueɗe o wawa faade to allah kono yo andu so dogi o ummima to allah o halkima aduna o halkima lakara kala doɗɗo mo wonane caggal allah on o halkima kala doɗɗo ummino ummiɗo to allah to fayi so neɗɗo ummima to allah to fayi so neɗɗo ala allah to fayi holko dañi so neɗɗo dañi allah o dañi foof o wasani kono so neɗɗo waasi allah aduna makko boni lakara makko boni ɗum tagi allah wi fa firru ila llah mbokk yi du ñu jeexal xutba bi lu dul ñu eggale leen lañ daan eggali rek te mooy tàllalaat mbokk yi loxo pour ñu dimbaliwaat mbokk jullit yi bis bu nekk dinañ taxaw fii di dimbali ay mbokk yoo xam ne dañuy indi ay ordonnance ay analyse waaye ñun ñuy joxe bu nu tàyyi benn waay dafa aj ba génn ci kaaba gi rek mu gis benn waay taxaw naan fii sabilillah ngir yàlla mu gis benn waay génn ci poosam di joxe su waa ji ne ngir yàlla rek mu génn jox ko waa ji ne ngir yàlla mu jox ko waa ji ne ngir yàlla mu jox ko waa ji ne ngir yàlla mu jox ko ñu ne ko yow yow ki ngay jox kenn la mu ne li muy wax bu dakkut li ma koy jox du dakk li mu ko li muy wax su dakkut li ma koy jox du dakk yàlla la may laaj yàlla laa koy jox kon yow mi joxe joxoo imaam de joxoo waa jàkka ji waaye yàlla ngay jox te yàlla moom ku ko jox wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda man tajiduhu inda allah kii jox yàlla yàlla la insha allah yàlla dina ko dencal kon bu nu paree am na benn mbokk julit bu soxla ku ko dimbali ci ay ordonnance am ay analyse am lu ci waay mën nu mu mënta toll buñ ko xeeb nañ ko dajale jox ko mbokk boobu insha allah yàlla subhanahu wa taala bindal ñu yiw àdduna ak yiw alaxira اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن آقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله